ngeen baal ma ginnaaw dalal gi ak nuyoo bi ma njëkk a wax ci loolu ci reconnaissance ci jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ji ma wax professeur seen dafa xër rek waaye bëgguma ku koy wax ba noppi sax di ma ca tudd ndax moom jutta bi mufradin lana faaxal jumal xutta lana mox jëla jëy sin wa amal dafa distingué ku tedd ki booy wax ci moom ber murit yi nga xam ne ay nubbalaa u lañu bu ñu ne wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi la ñuy wax te xuddaam yi xam nañ ñu bari na waaye li mu distingué tax yelu ak biral am na ma bëggoon comme ça dérange dafay derange malayka yi rek la dul déranger ak suñu borom mi leen bind ak ahlu badrin ak yonent yi waaye ñun ni ñuy defee jërëjëfe Sëriñ Tuubaa ci sakk ci xër ñun façon bi nu koy defee ñun bambis yi dafay derange dafa am ku faatu Daaru Mooti ñu koy wax Pape Samba moo jiitu woon liggéey ba jumaay Daaru Mooti ba mu faatoo man kenn xamuma ma di faral di dem ci ay armeel waxuma la di dugg ci bàmmeel ba ma demee bi ñu koy denc di ko dugal ci bàmmeel bi ma dégg xale yi ne jërëjëfe Serigne Touba ma dugg ca bàmmeel ba nangu néew ba ñu fa jegee Serigne Bassirou Abdou Khoudoss ne ma yow de tey def nga lu ma jaaxal yow xamuñu la sax ci di fekk ay rob waxuma laa di dugg ci bàmmeel ma ne ko jërëjëf Serigne Touba jàmm fa duggal chakaran yi la wax hinda jamihi jundihi mus xasadu ziyaarati min hindihi loolu la ko tedd ki wax nee na ba ko yàlla yàllay sant ci kanam malaakaam yépp la ko waxee looloo tax ñuy def ay njooxe di ko ziare si Touba night and day mos xasadu ziarati min hindi benn malaaka buy xëy di def liggéeyam te demul ziare ji Touba dellu amul da xefa xipp la wa ma amruna illa wahidatun kalamhi bil basar comme xef ak xippi suñu borom bu nammee day gaawee ni xef ak xippi man maa tuddee sama bopp le guide de la révolution pacifique pourquoi pacifique hmm? lan la ko tedd ki wax bi mu ñëwee malgré fi mu jaar yépp ñu gas ko suul juróom-ñaari fan mettre ko au poteau nga xam ne bu ñu nee feu loolu waral ci bisu gaaw mu bind ca raddata mawti la lillazina akhraju falyansarif min ilayhim haraju galoo nga leen samag dee waaye wajjah ilayya ma lahum qad kutiba min alxuyuri wa baqa yaktuba naa fi des mentionné ko delloo leen samag dee tama des fii te seen kër yi àjjana ya maa ko moom nga jox ma ko suñu borom nangul ko ko mu sedd la ko saaba yi jox leen ko ay hadaya mu ñëw ni lan xafawtu anil ada i turan ku ko déggulit ku ko jàngulit di ko dégg loolu moo waral pacifique chaque chose nag en son temps li kulli shay'in ajal te humuril insani ya'muru bi tadrij destin de su ko intellectuel waale destin yenn saa yi nga dégg borom xam-xam bu ne man sama destin dama koy jël en mai un croyant, mm. un aspirant, mm. un aspirant véridique, un aspirant véridique et intelligent warta wax loolu ndax ci xaqul mu benn la reposé mm. te loolu yàlla képp dong rekk kot te kenn la ko jox ki ni maddaliyel xaqul mu benul xaqa wa bil xiyaaral ulama araqa gis ngeen ñoom Seydina naa nii da ngay nekk savant ba noppi soog a soxla ku tedd kii oh. mu jox la auteur moo taxa ma wax professeur professeur ñaa léegi ni ko ñu ko dafa am kuréel boo xamante ni bii spirituellement socialement penku lay taxawe duñu ko tudde coalition du siècle waaye bii day doon temporel rek moom mu doon spirituel booba saa jigéen ñi ki koy jiite wax naa ko ba noppi tudd naa turam ca fan yee muy soxna ndey bu soobu soxna may mënatu galas góor ñi rek la wutagul koo xam ni moo koy jëwriñee waaye jigéen ñi moom tànn nañ ko ci ba noppi ndax wu njàmbaara su ngeen gisee ma ànd ak Serigne Abdou mi ak sama rakk yi ak sama doom yi Serigne Abdou ku ne xam ne sama diggante ak moom ci soxna Ndike ak Serigne Abdourahmane Trondo waaye dafa am fu jamono toll man amaluma kenn njariñ ma woo ko sant ko lu ma ko mus a sant ba noppi weeje ko nan laa ko weejee mooy damaa jël Serigne Ousmane bu bàyyi si xaddi rakkam bi ñu tuddee sama baay te muy sama jëwriñ jël Serigne Mahmadan rakkam def leen ci seede nii leen seen mag yi naa ko sant lu ma ko mus a sant tey dama bëgg mu nekk sama naayib naayib naayib mooy bu dul man yow a loolooy naaj bu ma nee diis yow loolooy naay. waxuma structure de waxuma société waxuma association waxuma daayira waxuma kuréel waxuma parti mhm. waaw damay nekk xaayit mu nekk naayibul xaayit ma loolu leer bu ko defee comme ku nekk ak li la yàlla may dafa am yu ma manqué le te gis ko ci moom dama mhm. yor sama fulay bopp te muy sama mbokk di sama rakk mhm. ñu soppante te du ma bañal dara ma proposé ko ko mu nangu néewuma mu nangu ko dem ci rajo yi di ko wax waxuma loolu ndax moom bariwul wax daanaka ku ko déggoon ci temps yi yëpp mooy li ñu laal waaye ma tax <laughs> mais foofu dinaa fi ñëw de yooyu yëpp dinaa fi ñëw tey du ma bàyyi dara du bàyyi dara de faw rek euh, Seydina Aliou mi jàmbaar la Aliou Sow na ko jeunesse bi bàyyi xel parce que nee naa ko nii nee naa ko niij ni ko nacc niij ak nacc nag bokkul waaye solewuñu ñoo bokk ndey ak baay waaye du ñu ay seex te duyu góor ak jigéen itam dinaa ci ñëw ci kanam xale bu toll ni yor âge bi mu yoree depuis que mu bañ mu ñàkk nekk ak ministre ak léegi mu bind fi juróomi livre indi na ma juróomi livre ya benn bu nekk la muy caar mbat royukaay la ci xale yi mi ngi sunu kanam dinañ ko waxaat ba noppi bokk ci ñi njëkk a nangu coalition du siècle xamoo problème du du problème na Seydina yi sax ci biir waxam wax na léegi ba ni ba tudd baatu naqar wala fa koy wax waaye man ni may dundee dafa àndu tël dafa du man a ànd ak naqar waaw ni may dundee mënut a ànd ak naqar ndax koo xamante ni bii sa maam bu ñu ko nee diw deena mu ne alhamdulilah bu ñu ne ko diw néeg ba dafa lakk ci kawam lakk na ba ñor xomm dee mu ne alhamdulilah bu ñu ko diw soxnaam am na doom mu ne alhamdulilah diw dam damm mu ne alhamdulilah maam Thierno Birahim kenn mënu koo garaa wala dara dafa am lu ma ci diw je suis extrêmement dangereux man waaw man Modou maa leen wax loolu ba tax na du ma nangoo am naqar li ko waral mooy ku tedd ki daf ma baaxee defar xol bi fóot ko ba mu set ci li nga xamante ni bii wax na ko nee na moom li muy wax waxul rek yam ca xam ñun ñoo dul settantal rek li muy bind. waaye jii mii fu mu ko wax moom ko tedd ki fu mu nee jii mii xoolal lan mooy jii mii bu ne sama ñett yi parce que waxula ko da ko codé ayaatu rabbiya wa jii mii jii mi yooyu ayaatu rabbiya wa jii mii jii mii jooju lan lay bindee loxo nday joram ci lan ci xalima fu mu koy sëpp ci daaji loolu mooy jii mii lan la ciy bind waxi yàlla léegi nag bu adduna bi demee ni mu demee lu nekk yi xew ba xew fu nekk ba ci gis ngeen mask yi nii seen naa bi mu ñëw ay teggi na tax mu xam ne fii kenn masque wul mu dindi ko rek waaye masque xew fépp ah <laughs> waaw te kilifa ñëpp da koo jàngale xañ na barki Demba Njaay lañ ko tàmbali takk ko te da koy jàngale ngir rek faw ñu jàng sëñ Muntaxa mooy kan faw ñu jàng ko mm-hmm. sëñ Muntaxa dañ ko ñuy jàng la danga koy jàng ku sént ci moom loo xamante ni bii nekkul woon ca mag ña daaw ñu ko doxe doo ko gis am na yoo xam ne du ca xaabaa bal amul jotam man ñi ñu jàpp nii ci sama njaboot bi ma àndee Jili Sall bi Jili Sall bëggee wax ba ma ba ma femm ko dana ko ah loolu pënd bu fi jaar di jàll rek ñu daal di dem ci leneen ba ma ko ne je vais exiler def ne ma loolu moo mënta nekk daal di may wëndeel dugal ma ci beneen waaw loolu waxoon naa ko ci jamono yi sëñ Cheikh Mati lay ne damay exilé loolu yii Seydina yi mii di wax looloo ko waraloon njaboot gi màgg nañu ñoom Cheikh Mbacke nga ne hmm, su ma demoon wuti feneen fu ma dëkk fudul Sénégal itam ñu taxaw njaboot gi rawante naa nag bi ma nee sama waa ji borom sikkim gi bi ma ko ne léegi yow faw nga doon sama naayam léegi sëñ Abdou yow yaa dugg bay boo nga ñaan ma bañ a exilé waaw ndax li ñuy tuddee ay muskilaat pluriellement ah. di nga dégg ku bi gis bi ne Serigne Ousmane moom li mu war a ñaan mooy ma bañ a exilé <laughs> ndax dina son trop kon bu ko defee bu ko defee lu simple la dañu ni Seydina Aliou moo ma ubbil bunt bi ndax dafa comprendre moom te ku tedd ki moo ni uri li wacci maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila ku tedd ki du ko jóg rek mu ne la yoon waa ngi nii déedéet aspirant bi aspirant véridique bi et intelligent kooku lay woon yoon moo tax jëwriñ mënut a ñàkk njiit mënut a ñàkk kii nag mën naa jiite jeunesse bi moom loo ci mën a dégg ne ko ma ñëw ne ko Seydina Ousmane Sonko mané d'une part ni ko keneen mané d'autre part waaw kenn ku ci nekk ak sa domaine ñoom ñëpp a war a nekk benn dànk te ñii fi nekk Macky président Macky moo ci collaborateur am ñu yokk yërmande ji ci ñëpp Serigne Abdou am na loo xam ne bërki démb moom mooy léppi Sonko te bërki démb laa koy soog a wax nee naa ko bi élection présidentielle yi jub si dafa am kilifa gu ñëw nettali ma ni dafa gént Sidna Ousmane ànd ak Ousmane Sonko ak ñeneen ñëw ci man taxaw ma taxaw mu ne ma sëñ Muntaxa laa xamul lu ma koy def loolu nag rêve la waaye gént dina am interprétation waaw man la ma gént tel sama bopp te sama gént man a koy interpréter sama bopp waaw bërki démb saxoo njaay yàggul soxna Fàññang am na ku mu àndal muy nettali gént ba egg ci ne ma élection yii di ñëw da koo wër te fekkee waaye daanaa daanaka la Baba Diop waxoon Moustapha Niass ni ma sëriñ grand bi nangam dama ci dul jaar del la ak waaw akuk lamara Baba Diop ba ñuy wax ay affaire pétrole Baba Diop ni ma sëriñ grand bi nangam grand bi day dellu waaw la ma ra la wax léegi kooku waxoon loolu soxna Fatou Niang bu muytul mooy jiitu ndax man moom kenn du ma adressé yooyu parce que man Serigne Touba moo ma wax li ma fi war a dund may li jënti pour mu yokk kon ay élection mënu ma fee ñàkk bañ a fekk wóor na Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ku jara moytu dëgg la am na luy tax ñu yokk fan cause yoo xam ne day tax ñu yokk sa dund am cause yoo xam ne day tax ñu wàññi loolu moom am na ñu jàng alxuraan ñëpp xam nañ ko waaye du Mbacké mii ñu waajal ko ba mu pare bay waaj a jëm ci liggéey man ci waajtaay rek laa nekkoon ci waajtaay képp képp laa nekkoon bi liggéey bi waaj a tàmbali lañu ma ilham ngir Serigne Abdou sama rakk ji doon sama naay bu wallahi du ma man du ma waxant réew mi nag réew mi wax dëgg yàlla lu simple la Seydina Aliou ni ngeen di def mooy woote coalition du siècle yéen ñi nangul réalisme africain yéen ñëpp ngeen ànd ñi ko nanguwul ànd ngeen proposé ay élection anticipée élection général ngeen proposé ko mu bañ a am parrainage ñaari candidat képp jàkkaarloo yéen benn képp ngeen di wut nan ngeen di wute benn da ngeen di wut fukk ñaar ñoo xam ne kenn ku nekk carmbat nañ la xam nañ crit yaa ngi critères yi jiite réew ñu lët ma defal leen loterie <laughs> waaw nga xam ne du ngeen def euh, comme ni américains yi di def di def ay primaire ak yooyu déedéet loterie lañ leen di defal fukk yooyu ñaar moom n'importe comment ku ci génnul doon président itam faw nga faw nga doon ministre mënut a ñàkk parce que dañ laa seet ba xam ne man ngaa jiite réew du dëgg yéen noonu ngeen di def proposé ñi ci des ñi nga xam ne nag nee nañ yi waxi tubaab yi rek lañ gëm te moom la ñuy continuer ñoom ñëpp nañu ànd yéen ñi ci des ñëpp ngeen ànd kon léegi mu leer yéen ci des ñëpp ngeen ànd ba noppi proposé nag ay élection anticipée parce que nii situation bii demee mënut a continuer am na loo xam ne kenn du ci xaar ab xalifa du ci dugg sëriñ Mountakha du dugg ci yooyu vraiment ma leen koy wax de du ci dugg de mhm. beneen bi mooy lan mooy Hizbut Tarqiyyah barki Dembo Ndiaye seen jeysun bi mhm. jeysun malaa yiin ñu yéene waale ci murid yëpp ak jullit yëpp ak Sénégal yëpp man danoo fexe ba bu déwénee trois cent treize milliards lay doon du dara mhm. avec ñoom Seydina Aliou yi organisation képp la man bu boobaa buñ ñu nee murid bu nekk na joxe 12 millions damay joxe bu ñu nee na joxe 28 damay joxe. bu ñu nee na joxe murid bu nee na joxe 100 millions damay joxe. nañu essayé loolu ba xam dinañ xaar état ci dara wala keneen. wasalaam foofu laa yemaa.